Aujourd'hui, j'ai le cœur gros. J'ai vraiment le cœur gros. La poste est laissée à elle-même. Les postiers sont laissés à eux-mêmes. mais nous posséder. N'acceptons pas ce sort qui nous est réservé. Nous avons tout fait. Nous nous sommes engagés pour ce pays. Nous nous sommes engagé pour les populations sénégalaises. Mais le mutisme de l'État, ce silence assourdissant, doit résonner et bourdonner dans l'oreille de tout postier, sans distinction aucune. mënuñu wax poste di wax postier du singularisé pourquoi depuis ce matin ci intervention yëpp intervenant yëpp di def appel au cadre c'est important je vais jamais jeter l'opprobre sur nos cadres. Parce que parmi eux, il y en a certains qui sont vaillants, certains qui sont valeureux et que de se battre. nga xam ni bu duloon ñoom tey jii li ñuy jooy jooyoon nañ ko démb ils sont de se Mais parmi eux, il y en a certains qui sont des faire-valoir, qui obéissent au doigt et à l'œil d'un directeur général insouciant. Moi, je pense que Abdoulaye Baldé doit être derrière nous. Il est devenu indigne d'être le directeur général de la pos wax dëgg yàlla amatul maxaama waratul am sañ di wuyoo directeur général de la poste loolu nag bu fekkee ko dënk poste nanguwuñu ko décréter les travailleurs doivent décréter cela parce que trop trop c'est trop au-delà du mépris au-delà de l'arrogance au-delà de l'irresponsabilité au il fait montre, au-delà de son insouciance, mais de sa voracité, aujourd'hui, il a pointé une claque à l'ensemble des bossiers. Nous ne sommes pas des misérables, nous sommes des travailleurs. Nous gagnons nos salaires à la sueur de nos fronts. Nous avons envie de travailler pour survivre. Nous avons envie de travailler pour sortir notre entreprise des difficultés qui l'assaillent. Nous avons envie, nous avons envie, nous avons envie. Mais en face, nous avons un État qui adopte un mutisme qui ne dit pas son nom. Nous avons en face un directeur général qui ne s'intéresse qu'aux maigres ressources de li ñu dese as néew loolu lay xool waaye xoolu ko yéene ko postier yi waaye da ko xool yéene ko ay ñoñam ak boppam mais xool ca ba dalee wax ba léegi di dénoncer mu nekkoon loo xam ni am na ñoo xam ne ñu ko seen muy ñëw am na ñoo xam ne gisuñu ko am na ñoo xam ne gisoon nañ ko nëbb bët ruur seen i seen diggante tànk waaye tey mbir yi mu ngi nii ci suñu kanam mu ngi nii ne jaxran ci suñu kanam mu ngi nii ne fànn ci suñu kanam kenn mënatu mu nekk loo xam ni bu ci saafara amul la doon def suñu dignité di def suñuy fierté di def suñu sutura tey jii dina wuññeeku wàññi boo gis nag ci benn lay tàmbalee la manière dont il a procédé pour des acquis sociaux n'est que le reflet du mépris qu'il a toujours eu face à la poste et au postier mbéjum borom moo koy fajal boppam mais quest à l'origine de cela C'est la question que tout doit se poser. Pourquoi la bourse n'est plus, n'est plus viable Malgré les multiples opportunités, malgré la richesse de ces ressources humaines, malgré l'engagement de ces travailleurs, malgré les potentialités nga xam ne moo nekk ci secteur bi doxul li tax doxul mooy doxalin bu yorin gu bon moom mooy gabegie moom mooy népotisme moom mooy politisation de notre entreprise est-ce qu'on doit toujours accepter que bu ñu jógee def seeni luxóor ak seeni bu paree dal suñu kaw moo tax moi je suis de ceux-là qui disent que ces avances corrigées ne nous fait pas mais ces avances Korité sont boo xam kenn waru mën a dénoncer de manière unilatérale et que bii bi baa léegi war yooyu bu bëggee jëndee ay ndogu yoo xam ni da koy oto poste yi nga xam ne tey destiné à l'exploitation dawal leen ak carburant poste Bakolda pour reconquérir une base politique sur le dos des travailleurs loolu kenn du ko nangu